asalaamaaleykum euh, mbokk internaute euh, Sénégo tey yéen a ngi euh, am en face de vous ku ñuy wax docteur Malick Diop ñëpp xam ko ci directeur général ASEPEX en même temps mu nekk membre benn Bokk Yaakaar émission nay leer nag émission numéro 2 bi moom la dalal ginnaaw ba ñu dalalee Zahra Iyane Thiam donc docteur Malick Diop Sénégo mu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa Sénégo Malick sama turando ak sant bu naqari bi maa ngi lay nuyu. di nuyu doomu Sénégal yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew di ñaan yàlla lu ñu fi wax rek muy lu baax ci askan wi. jërëjëf ci dalal gu ñu dalal fii sa kër pour euh, ñu mun a amal euh, suñu émission nay leer bëgg nag ñu waxtaanee lépp mu leer ci élection législative yi ñu jëm mu war a am euh, le mille juillet 2022 saison des pluies ba ñuy ñëw sax gis nga taw bi naka ngeen di defee seen campagne ci conditions yi. waaw ah, campagne condition saison Euh, ñun dañu décider def campagne proximité c'est vrai que euh, surtout cette année bi nga xam ne les élections législatives yi on a moins de meeting euh, meeting yi wàññeeku na bu baax caravane yi tamit wàññeeku na bu baax parce que li ëpp solo ñu gis que ne mooy toog def li ñu naan porte à porte def le le contact individuel ak population yi waxtaan ak ñoom mais même loolu du luy yomb période saison des pluies parce que soo duggee ci kër. boo génnee foog nga génn dugg ci beneen kër donc di nga nekk ci mbedd bi ak yooyu euh, te wuy taw dafay gën a métti. Hmm, déjà campagne bi sept jours presque moom moo ci des euh, boo xoolee campagne bi xaw na géey ba ñu gisee ni Sonko sax dugg na ci ci la affaire yi xaw a yëngu tuuti mais lan la exactement. waaw li nga ñu mujjee wax moom sa point de vue la je pense que euh, man du sama point de vue par rapport ak diw ak diw parce que li ci ëpp solo rek mooy. campagne bi euh, suñ ko xoolee bu baax ñi koy yëngal dëgg-dëgg mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ku ci nekk yaa ngi sa gox ak sa goxaat. fan nga teg loolu. Euh, fi ma ko teg ci terrain bi li ma gis ci terrain bi li ma gis ci terrain bi waa Benno Bokk Yaakaar li ñu gis gisuñ ñu si des gisuñ ñu si des quasiment munoo ma ne diw diw diw diw euh, moom la ñu gis sur le terrain. par contre waa benn Bokk Yaakaar localité boo dem gis nga responsable mi ngi mu ngi euh, liggéey mi ngi dugg ci terrain bi et cetera di wax tamit lan mooy suñu programme ak lan mooy suñu mbëbët maintenant euh, ni ñu ko waxee rek ni ñu ko tàmm gisee man ça fait 23 ans depuis 1999 ñu ngi tàmbali politique mm-hmm. euh, damay constaté na engouement élection locale li nga xam ne nawetaan la mm-hmm. pour fal ay maire ak yooyu ak euh, élection présidentielle nga xam ne dañu fal euh, président de la république bokkul ak engouement bi ñuy gis élection législative bien que élection législative am na solo lool. Mhm. parce que ay euh, député la ñu war a fal ci pencum ndaw réew mi mais en général engouement bi du nekk benn. Mhm. donc loolu nga jàpp ne moom moo tax parfois muy xaw a géey. bon sa point de vue la mais ce que je je je constate en tout cas loolu constat la mooy. 587 collectivités territoriales. Mhm. bu ci nekk nga am liste yu bëri. nga war a fal ay maire dafay xumb. Mhm. loolu c'est normal parce que loolu la mooy naan naa waxaat donc donc da ngay am ay centaines de listes. Mhm. yoo xam ne boo ko xaymaa rek si sur sur collectivités territoriales yépp donc ñu bëri dañu nekk candidat liste bu ci nekk di nga am x conseillers yoo xam ne candidat lañ bokkul ak bii nga xam ne juróom juróom benn liste rek la. te candidat yi ci nekk bëriwul. donc mënul mënul nekk benn présidentielle tamit beneen dimension. Mm-hmm. lan la ñu mën a jàppagum ci campagne bi ci côté discours surtout discours tey Benno Bokk Yaakaar. waaw euh, discours. Benno Bokk contenu bi loo xamante ne tey gis nañ ne ñoom déjà ñoom ñoo nekkoon majorité assemblé tey ban euh, communication tey la ñu mun a defalaat askan bi tey ngir ñu mën leen vote laat joxaat leen majorité boobu. waa communication bi dafa simple. c'est très simple pour Benno Bokk Yaakaar parce que xam nga ni ñu ko xamee ñun nekkuñ opposition bëgg ñëw euh, pouvoir ñun dañu yore woon ñaari législature nekk ci majoritaire muy douzième législature ak treizième législature saa ñu jàpp loolu ba mu leer douzième législature ak treizième législature majorité écrasante bi Benno Bokk Yaakaar loolu donc ñun bilan la teg ci ndoddu doomu Sénégal donc ñun ñëwuñ proposer programme bu bees ñun bilan la ñu teg ak li ñu naan perspective mooy bilan lan ngeen def fan ngeen bëgg a yegg bilan ñaar la dama bëgg mu leer également nit ñi gën ko comprendre bilan législature bilan législature mhm. parce que fii dañu naan nekkuñ euh, kii boo xam ne régime régime boo xam ne régime parlementaire la. Mhm. boo xam ne kii kii kii orienté euh, li nga xam ne moom mooy politique publique yeeg yooyu. Mhm. vision tout ça kooku chef de l'état la. Mhm. mooy président de la république. ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi ñoom d'abord dañu am une fonction de représentation. damay ñëw ci bilan boobu dafa am ñaar. matériel ak immatériel. matériel bi mooy lan lan lañ def période boobu de man de manière matérielle par exemple bu ma jëlee tey traduction simultanée sa bu njëkk c'était c'était c'était symptomatique boo dee séeréer wala ngay joolaa wala ngay euh, euh, wolof walla ngay euh, couleur yooyu yëpp boo ñëwaan jël jël parole ngay député jël parole làkk sa làkk daanuñ ko jël en compte ci procès verbal surtout les secrétaires élus législature bu njëkk bi 2012 def li ñu naan traduction simultanée mooy sur sept langues képp koo xam ne dafa bëgg a exprimer wu day exprimer nu mu waree ñu jël ko jox ko jëwriñ nii nga xam ne ñoom ñoo koy yóbbu ci gouvernement gouvernement liggéey si beneen bi mooy tamit tamit loo loo xam ne lu am solo la les assistants parlementaires dañ leen yokk ñu gën a bëri ñuy liggéeyal député yi ci biir commission yi. Mhm. parce que député dafay saytu budget. Mhm. day saytu programme day day day day saytu ay loi mhm. il faut que ñu dimbale leen ci li nga xam ne moom mooy kii bi parce que liggéey bi dafa am loo xam ne ay loi la ak yooyu ay juriste yooyu yëpp dañ ci war a nekk. donc assistant parlementaire yi dañu yokku tey ci biir commission yi di gën a liggéey pour député yi seen liggéey gën a. gën a gën a joxe gën a rafet. au delà de ça également. ay loi la ñu voté su ma xoolee législature yi yëpp dinaa ñëw ci nombre de lois yi mais il faut que ñu am archivage jumtukaayu xarala yu yu bees yi il faut que ñu archiver ko def informatiser ko ba nga xam ne tey lépp loo xam ne voté nañ ko comme loi bu fekkee ne même dans cent ans boo bësee rek cliquer rek di nga ko génn loolu defar nañ ko ci assemblée nationale bi ci législature yi passé leneen li mooy formation député yi tey député boo xam ne da am benn niveau période cinq ans yi dinañ fexe ba former la muy extérieur wala muy bi ci biir réew mi ba sur secteur secteurs euh, éléments secteur d'activité nga am ci xam-xam boo xam ne da lay permettre ngay gën liggéey pour doomu askan beneen bi également bilan matériel bi immatériel bu ma jëlee loi yi ñuy voté foofu damay jël rek treizième législature mooy bii passé téeméer ak juróom juróom ak juróom-ñetti loi voté nañ ko ci période boobu te loi yooyu mooy permettre mettre en œuvre li ñu naan les politiques publiques. léegi nag ñu gën a leeral un certain nombre d' éléments député bi dafay am une fonction de représentation dooyu am na gox bu muy jóge député bi dafay voté ay loi gis ngeen loi yi ñuy voté et ni ñu koy voté dafay am saytu yu am solo yoo xam ne dañ koy def te loolu tamit opposition def ci absenté ñun bu ñu daan ñëw ci gouvernement nga ñëw ci commission yi ñuy xool loi yi di ko càmbar di ko critiquer député yi koy def loolu député euh, opposition duñ fa nekk. député pouvoir ñoo koy def parce que xam nañ ne loi bu ñu voté rek dafay am importance pour population. et beneen beneen fonction également muy fonction de de euh, de dañu naan la la la fonction de représentation. dañu naan également la légifération contrôle. contrôle. de du de l'action du gouvernement looy booy contrôler action du gouvernement mooy da ngay xool bu baax li ñu indi. Mhm. est que li ñu indi tegu na yoon suñ su mu teg su tegoo yoon politique publique yi ñu ma ne est-ce que ni ñu ko defee baax na. Mhm. moo tax par exemple soo soo su ngeen xoolee mission yi les missions des députés. Mhm. damay joxe rek benn exemple mission yi am na benn période dañu ne ñi nekk ci kaso yi seen condition naka la demee et cetera député yi dañ dem mission. dugg ci kaso yëpp xool fi ñuy tëdd xool li ñuy lekk et cetera ba indi ci ay amélioration ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yoo xam ne mi député yi def nañ ko sur le bilan euh, li may wax noonu leneen li également mooy évaluation de politiques publiques loolu tamit lu bees la mooy ñoom dañ daan voté contrôlé waaye daanuñ dugal seen xalaat ci politique publique yi est-ce que mun nañ ko réorienter et cetera et cetera léegi léegi député yi ñu ngi koy def leneen li mooy régime présidentiel lañ nekk. régime présidentiel du régime boo xam ne dañu député yi dañu dugg rek xool naka la ñu xool seen majorité voté pour génne benn premier ministre déedéet premier ministre président la république lay jóge donc les propos euh, les les projets de loi. gouvernement bi moo koy càmbar. boo ko càmbaree pare ko liggéey ci yónnee ko député yi su ko yónnee député yi nag. député yu xool réorienté buñ ñu ko réorienté voté loi bi bu ñu voté loi bi ñu mën a liggéey liggéey bi nga xam ne moom le président di liggéey actuellement. Mhm. aujourd'hui damay joxe juste quelques exemples. Mhm. président mi ngi tabax tali. Mhm. tali yokk na dem beeg dikk bi macha allah euh, mbirum hôpitaux yi. mbirum euh, jàng ak jàngale. mbirum social couverture maladie universelle euh, Promoville. Euh, PUDC et cetera loolu yëpp dafay ay projet ak programme yoo xam ne ñi ngi koy dérouler au niveau du gouvernement. pour mhm. loolu soo amul majorité lépp li nga xam ne da ko doon dérouler di ko président de la république fexe ba loolu yegg ci doomu sénégalais yi mhm. dootul mun yegg parce que blocage mooy am foofu. Mhm. donc pour tout ça également c'est important d'avoir une majorité qualifiée parce que régime présidentiel lañ nekk. affaire François Makambu nañ ci nañ ci wax. ndax muy détenu boo xam dañ ko jàpp euh, présumé terroriste force spéciale dañu bëggoon taal kaablu Sénélec euh, yóbbu yóbbu woon nañ ko waxoon ko mandat de dépôt finalement état de santé mu may ko ko yóbbu ko pavillon spécial mu xëy comme ça ñu annoncé dee na loolu lan nga ñëw ci mun a leerale premièrement lépp luy indi bakkanu nit bu rot ci biir Sénégal loolu déjà day loo xam ne dañ koy déplorer premièrement deuxièmement famille bi nga xam ne moom la jóge ñu ngi leen di jaale di leen di massaw troisièmement ñu nekk réew boo xam ne c'est pays boo xam ne loi moo ko lal dafa am fonctionnement bu mu am man bokkuma tey mhm. ci ñiy def ay météo wala di wax loo xam ne xamuma ko ku may wax administration publique ku may wax aujourd'hui affaire santé et man naa la jox des éléments purs des faits mais loo xam ne justice mi ngi koy liggéey ñi ci war a liggéey ñi ciy liggéey correctement dama leen di bàyyi ñu def seen liggéey te du ma nekk ci ñi bokk ñuy brouiller message parce que yaa ngi telle position yaa ngi far fii far fee ñu bàyyi justice def li mu war a def ñiy liggéey def li ñu liggéey parce que ce sont tous des professionnels ñuy def euh, les professionnels du milieu médical mhm. euh, de la justice et cetera ñu def seen liggéey su ñu defee seen liggéey ba pare mhm. ñu jëbbal li ñuy jébbal doomu Sénégal bu ñu jébbalee li ñu jébbal Sénégal ñu xam vérité bi lan la mhm. aujourd'hui képp ko wax da nga fekkeewoo gisoo xamoo man nag du ma wax loo xam ne fekkewuma ko gisuma xamuma par contre je parle des grands principes sur les grands principes justice dafa war dox. waaw sur les grands principes. dafa am information yu génn yoo xamante ne sax jóge na ci jabar ji mu ne dañ ko doon torturer après procureur def sorti mu ne am nañ vidéo de treize minutes buñ gis ne waa ji doon mbëkk miir bi donc loolu su amee forcément yoo aura des commentaires. est-ce que yow da nga seetaan vidéo. non man gisuma vidéo seetaanuma vidéo. est-ce que mais dama ne la lu procureur wax. waaw dégg da damay déglu rek. Mhm. te loolu tamit conseil la. Mhm. damay lay déglu. loolu tamit conseil la moo tax ma ne man ça fait vingt trois ans que je fais de la politique doo ma gis ma dugg ci loo xam ne du sama yoon. loo xam ne xamuma ko du ma ko wax. loo xam ne c'est-à-dire ñi ñuy vaar. tout le temps c'est pas uniquement les hommes politiques da ngay gis journaliste bu ñu vaar. ñu bëri parce que tout simplement nit ñi dañu dugg ci loo xam ne xamuñu ko. tey loo xam ne wo fekkeewu xamuma. xaw ma li ci biir du ma spécialiste domaine bi du ma ci wax duma ci wax bu nit ñi continuer seen liggéey ba pare ba jëbbal ko askan wi bu boobaa su ma amee commentaire bu ci def ma def ko su fekkee ne bugguma ci commenter du ma ci commenter kon sujet boobu fa nga ci yem xalaatuma man mais xanaa doo ma suivre. daan le milieu coowu Idrissa Goudia moom doo ci wax. mais nee naa la 1999 laa tàmbali politique. moom laa dama ne mus nga ma dégg ma ci lu sa loo xam ne man xamuma ko. waaw xam nga loolu. musuma ko loolu nangul nañ la liberté boobu. tout à fait. waaw mais aussi am nañ droit poser la question. waaw d' ma ne la nag du ma ci coowu Idrissa Goudia bi moom doo ci tontu. du ma ci tontu tant que xamuma. Mhm. li xew. Mhm. xamuma li xew. donc da ngay xaar yoon def fekkeewu ma. nekkuma fa woon mhm. duma ci spécialiste mhm. donc maa ngi bàyyi ña fekkee mhm. ña fa nekkoon ñii spécialiste yi ñu def seen liggéey bu ñu defee seen liggéey ba pare bu ñu ko jébalee askan wi ma sogo mën a commenter wala sax su ma bëggee du ma commenter donc kon affaire Idrissa Goudiaby bi c'est la même chose doo ci wax même même réponse d'accord loolu moom mbokk internet yéen a ko dégg docteur Malick Diop moom nee na lu yoonam newul yoonam new ci du tontu euh, donc nañu avancer tuuti wax ci leneen ñu delluwaat tuuti ci campagne bi gis nañ ne seen tête de liste nationale Mimi Touré Ousmane Sonko mu ngi koy lancer pic di wax pour ñu def benn débat public démb gis nañ euh, Mimi Touré bon mu ne d'accord na débat bi am mais dafa teg ay conditions. même loolu sax bëriwul commentaire am na koo xam ne tête de liste la. am na koo xam ne nekkul ci liste yi. Mhm. dégg naa leen ñuy wax dégg naa ku ci nekk wax sa opinion kii nee na dafa bëgg a débat kii nee na conditions yi laa teg pour débat bon nous attendons réponse su kele xëy na su d'accord si conditions yi ñu débat xëy na duñ débat surtout buñ si perte temps amul perte temps loolu perte temps la pour man. <laughs> mais bi bii nag foog nga wax ci de. ayca perte temps la. lu ma wax loo xam ne dafa may perte loo temps fi mu ne nii ñi ngi ci campagne dama bëgg wax ak sénégalais yi waxal leen programme waaye diw wax na diw man ça m'intéresse pas man du ma wax affaire diw <laughs> quand les gens comme je dis quand les gens parlent quand certains parlent des gens il faut parler des idées des programmes c'est tout man c'est ça mon principe je parle pas des gens waaw mais idée Ousmane Sonko idée Ousmane Sonko waaw yow kooku moom. xanaa dafa am idée Ousmane Sonko lan la dem na Ziguinchor toog dem na Ziguinchor dem na Ziguinchor toog mu ne tey njiitum réew mi dafa am haine contre les Casamance. manuma mais loolu je pense tamit loolu quand même. affaire di loolu moom wax. je t'ai parlé des principes mhm. majeurs mhm. de violence physique. Mhm. de violence verbale. tey nous sommes dans un pays boo xam ne. c'est multiculturel. multi multiracial même. Euh, multiethnique. Sénégal. fi ngay gis man dama bokk famille boo xam ne y de des pulaar fële ca gëngël sule waa kawlak waa Joal ay séeréer euh, waa waa waalo waalo ay wolof et cetera donc brassage ethnique mu am ay chrétiens ay musulmans ñu nekk dans la dans l'harmonie mmh. Sénégal noonu la mel notre appel c'est que Sénégal continue mel noonu parce que comme on fait le, le tour du monde mhm. quasiment tout le temps dañu gis ne chaque fois qu'il y des problèmes ethniques mhm. qu'il y des problèmes majeurs euh, yoo xam ne c'est entre reli entre euh, religieux mhm. et cetera population yi rek ñoo si am problème donc ñun homme politique ñun ñoo war a stabiliser. stabiliser et même entre nous. Mhm. entre hommes politiques warul am ay ennemis ça doit être de l'adversité. Mhm. boo xam ne c'est c'est une saine émulation. Mhm. moo tax man dans le milieu politique kenn du ma dégg ma fustiger telle personne telle personne je parle pas des gens. je parle des grands principes. loolu moom ma dugal ci ci ci politique. parce que euh, j'aurais pu faire autre chose. je fais autre chose d'ailleurs. mais si politique bi may yëngu. dam ci bëgg boole éthique. boole ci morale te ce que je fais tous les jours soo ci bëggee boole éthique boole ci morale da ngay fexe ba di stabiliser. même boo déggee ñoo xam ne ñu ngi wax loo xam ne du naka su noonu nga ngay def appel. pour que nit ñi nekk euh, appel à la raison. même campagne électorale bi nit ñi wax ko de manière civilisée. wax seen programme bàyyi violence yi. après dimanche incha allah ñu voté ku gagné gagné ñun ñëpp ñu accepté. ñun ñëpp ñu accepter c'est très important lundi ni ñi dem liggéey moi je suis dans un pays appelé le Sénégal où ici au point E 2009 j'ai été élu maire alors que opposition laa nekkoon 2014 j'ai été battu ici toujours au point E alors que maa ngi woon mouvance présidentielle loolu c'est le Sénégal avec te gis nga biñ quand j'ai perdu en 2014 je suis le premier homme politique à appeler publiquement bi ñu commencé def def def Eh, jeexal dépouillement pour féliciter ki nga xam ne moom moom moo moom moo gañe ne ko nag ci li ngay def ci ci ci gox bi sama expérience dina ma permettre dem na dimbale ci li ngay liggéey te ce que je suis en train de faire d'ailleurs donc c'est comme ça que ça doit marcher affaire bi du du du nañ ko nañ ko def sport c'est du sport c'est de la saine émulation c'est pas tudd diw tudd diw tudd diw journaliste yi également c'est la même chose c'est-à-dire un journaliste doit être à équidistance. doo wax rek bàyyi journaliste yi. non non wax ci nga ba pare rek bàyyi bàyyi journaliste yi. que ñu que ñu am xam nga mënoo lancer nga benn message fort. donc loolu ñi ngay waxal les politiciens tout le monde ñoom ñëpp dinañ ko dégg. ñoom ñëpp mais xam nga tey xam nga tey xam nga tey c'est vrai que da ngay condamner violence bi ak. quelque bord qu'il soit comme comme comme nu ngi ko waxee. et je ne waaw te te personnalisé woo ça c'est vrai mais dafa am tey e, loo xamante ne parfois kàddu yu jub yoo xamante ne mën na yóbbu réew feneen yu mel ne tey la dernière fois di yàggul dara ajjuma bi ñu génn gis nañ ne ku mel ne Serigne Modou Kara mu def sortie c'est vrai que nee nga doo wax ci nit quand même mais. tamit nit ñi ñooy wax donc il faut ñu wax. moo def sortie mu ne après élection législative dafay demande Macky Sall ñu jéem a changer constitution bi pour permettre ko mu mun a def mandat illimité déjà sénégalais yi ñu ngi ne troisième mandat. yaa ngi dugg ci loo xam ne wóor na la ne Malick Diop du ci wax li mu wax moom boppam la engagé. doo ci wax. boppam la engagé. gis nga mais question de troisième mais question de troisième mandat aussi mais mais question de troisième mandat. il faut nga xam nit ki c'est-à-dire dafa mel ni. yéen El Hadj Malick. oui El hmm. maa ngi lay déglu xaw ma li ko doon sama turandoo la moo tax nga nga mel nii tey xaw ma mais dafa am li ma li ma bëgg c'est vrai que wax nga ñu maam say principe mais dafa am question yoo xamante ne pour man daf la interpeller interpeller man interpeller tey keneen ak keneen déjà question de Macky Sall bañ koy fal en 2012 gis nañ réew mi nu mu fi meloon te lenn rek a fi amoon mooy. bugguñu mu def troisième mandat même situation buñ jógee ci élection législative même situation mooy am léegi bu amee ay nit yuy jóg di wax pour ñu changer constitution pour permettre tey président mun a toogaat mais ça quand même dañ ci wax a commentaire. pare nga pare nga. yow laa déglu. dama la bëgg leeral man sama principe. wax naa la du ma wax ci nit. Mhm. du wax ci. des aspects yoo xam ne ça ne concerne pas tey li ñuy wax ñun dañu fi ñëw pour lan pour wax programme pour wax élection législative fi ñu jëm yaa ngi may tudd koo xam ne dafa wax ay constitution et cetera je dis li mu wax moom moom la engagé premièrement duma si perte temps ñaareel bi li ngay wax président bi may tàmbali lu ma la wax dama ne la ñun ñi ngi wax affaire élection législative waxuñ locale ñu ngi si suñ ginnaaw waxuñ présidentielle ñëwagul bu ñu waxee ci législative ba pare ba législative jeex bu jotee ñu wax ci euh, élection présidentielle ñu toog wax affaire présidentielle mois je marche sur les principes kenn mënu ma teggi ci principe yi may dox xam nga il faut que mu leer moo tax ma ne il faut que ngeen xam bu baax type d'interlocuteur bi ngeen am man je suis libre d'esprit je suis li may wax sama sama sama fonctionnement et c'est comme ça que je fonctionne et et noonu laa même si je suis seul bu doon 17 millions de sénégalais yi lii lañ xalaat man sama xalaat lii la sama xalaat laay wax kenn mënu ma si teg parce que voilà je suis c'est comme ça que je fais la politique non sa xalaat nangul nañ la ko parce que tey ñun dañuy laaj yow ngay tontu. askan wi askan wi ñooy juge loolu nag moo baax rek mooy juge. très bien waaw. lii nag laa c'est le rôle du journaliste. non moom moom la ñuy def saa su ne. moom la ñuy def saa su ne de journaliste yëpp dañoo tëddee jaaxaanaay. loolu sa loolu sa avis la muy ñun ak ñeneen ak ñeneen ñëpp. loolu sa avis la dañoo am na ñu tëddee njaaxaanaay. Mhm. am na ñoo xam ne tëddeewuñ njaaxaanaay. Mhm. ñu waxan léegi ñu nañu nañu kii rek nañu mhm. nañu wax sur les principes rek. léegi euh, c'est comme c'est comme dans le milieu politique. am na ñu baax. am na ñoo xam ne tamit am na leneen lu ñuy def loo xam ne du du yoon. om politique laa wax am na ñoo xam ne dañuy def mbir mi yoon. jaaral lépp yoon. am na ñoo xam ne des fois dañu wàcc yoon. c'est la même chose journalistes yi am na des pros. am na des fois ñoo xam ne dañu wàcc yoon surtout. man c'est ça euh, léegi ñu avancé. depuis début émission bi li ñuy wax programme programme léegi tey docteur Malick Diop bu ñu la laajee programme tey pour législative yi donte amoon na loo ci commencé woon wax sànq début bi donc ñu ngi lay may ci deux minutes nga wax ñu sa programme. merci moo tax ma ne euh, c'est très important li nga wax dama clarifier déjà mm-hmm. ñun lu programme uniquement. Mm-hmm. dafa am bilan. Mm-hmm. bilan. législature. non ñëwoon nga ci bilan bi. waaw non non dama foog ma résumé waat. Mhm, mhm. pour pour parce que tamit waxoon naa ko. <laughs> Ah. foog ma résumé waat. Mhm. wax naa fi bilan matériel. donc kon déglu naa la xam ngeen déglu naa la. waa déglu nga ma. ah kon wax ma ne déglu ma. ah <laughs> ayca ayca ayca ayca ayca naa ne déglu nga ma. waxoon naa bilan matériel. bu leer nañ. wax naa bilan immatériel mu leer nañ. wax naa ne précis précisément quatre. rôle yi mhm. quatre fonctions yi mooy fonction député mhm. te ñun dañu bëgg a gën a gën a liggéey ci fonction yooyu ñu gën ci dugal député yi mhm. bu mujj bi mooy dañu bëgg une législature boo xam ne du nekk en contradiction avec un programme qui est en train d'être déroulé faut pas oublier que président mi ngi fi depuis depuis dix ans et il doit être là jusqu'en 2024 fii il doit continuer à mettre en œuvre les politiques publiques yooyu moo indi croissance bi cent ba aujourd'hui ñu yegg si 6 virgule pour cent. ba l' année prochaine ñu war a yegg si 8 virgule 5 sur beaucoup de secteurs d' activité loolu deux deux minutes mënu ko wax. mun naa mun naa def un un un bilan ramassé mm-hmm. mais. ce bilan ramassé pour que sur les perspectives du PAP 2A mm-hmm. pour que PAP 2A ñu mun ko dérouler mm-hmm. il faut obligatoirement qu'au niveau de la du gouvernement il y des propositions de loi des des projets de loi projet de loi yooyu ñu mun ko càmbar jël ko dugal ko biir assemblée et que les députés qui soient là soient des députés de qualité liggéey ci buñ ci liggéeyee fexe ba am une majorité qui puisse mettre en place un système permettant d'avoir euh, la, la, ce qu'on appelle l'habilitation financière il faut il faut que ñu xam loolu régime présidentiel foog nga am habilitation financière de l'Assemblée nationale bu ñuy légiférer pour que loolu mun permettre président de la République mun dérouler les politiques publiques yi dal population donc loolu moom mooy tous ces éléments, aujourd'hui je donne l'exemple de la CMU qui est une loi, couverture maladie universelle, Sénégal en 2012 téeméeri nit fukk ak juróom-ñett rek lañ mënoon faj ci faj bu yomb. aujourd'hui CMU 35 milliards chaque année fexe na ba yegg si nañ ba pour cent mooy téeméeri nit juróom fukk ak ñaar ñu ngi leen di faj te suñu objectif mooy ñu yegg pour cent. donc loolu yëpp dafay ay loi yoo xam ne dafay dal ci population bi mais pour mu dal ci population yi ci lu baax il faut que ñu am législature bu baax il faut que ñu am assemblée bu baax il ñu am majorité à l'assemblée nationale mm-hmm. pour que ñu mën a liggéey loolu yëpp mm-hmm. économiste bi moo doon wax walla politicien bi no man je ne suis pas un politicien mm-hmm. dama bëgg mu leer waaw moo tax ma laaj la ba xam économiste bi moo doon wax je parle carrément de euh, mise en œuvre de politique publiques. man je suis spécifiquement un administrateur public. c'est vrai ñu bëri li ñuy jàpp mooy euh, corps médical. mais je suis un administrateur public en même temps. en tant qu'administrateur public aussi bien diplômé que koo xam ne da ciy liggéey depuis depuis 2009. dama xam ne que problème public foog nga identifier ko. soo ko identifier nga def ko daa mise à l' agenda nga dugal ko ci agenda bi ba pare nga mettre ko en œuvre. loolu boo koy def nag li may wax noonu moom mooy li génn ci lépp li nga xam ne moom laa la tegal nii. donc c' est effectivement l' administrateur public qui parle. et c' est l'homme d'État qui parle. pas politicien. politicien nag am na. ñoo xam ne seen profession loolu la. man sama profession. du politique. damay def politique fi nga xam ne foofu la population yi d' accord ma liggéey fi nga xam ne foofu jaww euh, président de la république d' accord ma liggéey. donc il faut que ñu def différence bi. parce que c'est une différence fondamentale am na ñu bëri tey jii ni ñoo xam ne seen liggéey politique la. man ma ci ñooñu. voilà tey nañ ñëwaat tuuti ci sa liggéey gis nañ ne yaay directeur général ASEPEX. mën nga ñëwaat si ASEPEX sénégalais yi gën a xam ASEPEX ñu xam lan la ñu mën a bénéficier wu ci ASEPEX. alors ASEPEX ñu jàpp ne que mooy kuréel bi nga xam ne mooy yore développement ak promotion des exportations mooy li ñuy defaree fii wala ñu koy nappee fii wala ñu koy bayee fii. defar ko ci anam bi nga xam ne boobu la jëndkat yi soxla. Mhm. fële ca bitim réew. ñu jël ko yóbbu leen bu ñu àndeek ñoom ba ñu defar ko ba pare. ñu def ko aux normes anam bi ko soxla ñu yóbbu ko bitim réew ci ay mission économique e et mhm. euh, commerciale maanaam ndajeb jëndkat yi ak mhm. jaaykat yi jógee bitim réew jógee Sénégal. Mhm. ci ay foire ci ay salon ci ay exposition bu ñu ko yóbboo foofu jaay ko ci njëg li nga xam ne moom la ko ñooñu soxla maanaam. bu dee cent franc lay jar Sénégal xëy nañu ñu jaay ko mille franc extérieur ci liggéey boobu nag temps bi du ñu permettre ñu dugg ci lépp mais ñi ngi liggéey ci xarala ñi ngi liggéey ci mbay ñi ngi liggéey ci napp ñi ngi liggéey ci topp toccarmeku ñi ngi liggéey ci mine pétrole gaz sax ci la bokk ñi ngi liggéey ci euh, ñooñu nga xam ne artisanat lañ nekk ñi liggéey ci der ñi liggéey ci bant ñi liggéey ci ameublement et cetera et cetera loolu nag président de la république bi ñu koy dénk daf ñu ne fi ne nii mooy 31 décembre 2012 mi ngi ci 1264 milliards mooy recette d'exportation mhm. maanaam xaalis bi jógee bitim réew di dugg ci biir réew mi mhm. ñu tas ko ci doomu sénégalais 1264 milliards mhm. la woon ci 2012 tey yóbbu nañ ko ci 2884 milliards maanaam at bu nekk rek bu doon téeméeri pàcc yokk nañ ci lu ëpp fukk maanaam ci fukki at yokk nañ def nañ cent trente sept pour cent de croissance cent trente sept pour cent de croissance ci fukki at donc loolu moom mooy li ASEPEX di liggéey di ci liggéey liggéeyal euh, gouvernement tamit ci orientation président la de la république président Macky Sall. Mhm. en une minute bu nekkee am na question bu nga doon xaar te ñëwul loo doon xaar nga wax. wax nañ question yi majeure partie mais surtout rek appel appel. Mhm. mën naa wax rek. appel aux aux sénégalaises aux sénégalais. Mhm. maanaam mooy lan dama bëgg doomu Sénégal ñu ñu jàpp nekk rek ñun homme politique yi nous sommes comme parce que loolu dañuy juum. nous sommes comme le sénégalais lambda du ñu nuñ du ñu extraterrestre du ñu amuñ dara lu particulier il faut pas que homme politique yi won nit ñi on est ordinaire nous sommes des mortels comme les autres dañuy def ay erreurs comme ñëpp mais bu ñu defee lu baax day amplifier cest à dañ koy dañ koy multiplier bu ñu defee lu bon tamit day amplifier parce que homme public lañ mais que les Sénégalais soient un peu plus indulgents par rapport aux hommes politiques mais aux hommes politiques surtout ñi nga xam ne bëri parce que ñun boo taal boo gisee téeméeru doomu Sénégalais mhm. je vous assure amul pour cent boo xam ne mu ngi ci parti politique mhm. ñi si des ñëpp defuñ politique mhm. mais il faut pas que ñuy dugal Sénégalais yi ci loo xam ne du loolu c'est vrai homme politique yi nag ñoom ñoo yore lenge yi souvent ñooy nekk député ñoom ñoom ñooy nekk ministre ñoom ñooy nekk directeur généraux yi ñoom ñooy nekk fépp HCCT C16 et cetera dëgg la donc am na lu bëri yoo xam ne ñoom ñoo ko yore mais nañ koy yoree ci jàmm nañ ko yoree ci yërmande yërëm doomu sénégalais yi parce que métti na c'est vrai que du Sénégal rek adduna wërngal képp moo am problème sénégalais yi bu ñuy kaas c'est normal que ñun ñi nekk mouvance présidentielle ñu xam ne c'est normal ko opposition ba ñu utiliser également détresse su sénégalais yi pour kër rek détresse am na rek ñu fexe ba utiliser détresse su sénégalais yi pour manipuler dañu bàyyi loolu ñun ñëpp nañu bëgg Sénégal gën bëgg Sénégal man bu ma toogee fii Sénégal bëgg a continuer euh, liggéey Sénégal sama doom sama sët et cetera parce que gëm naa ne monde entier amul fenn fu dàq Sénégal amul nag réew bu ñu demul mais amul réew bu ñu jaaxal amul réew bu ñu gënal Sénégal homme politique yi nañ ko jàppee noonu te nañ ko bañ a def profession que les hommes politique nañu liggéey li ñu war a liggéey parce que boo ko defee profession rek que ngay opposition que ngay pouvoir boo dee opposition lii dina la jaral nga rey sa bopp pour nekk au pouvoir boo dee pouvoir lii dina la jaral nga rey sa bopp pour bañ a génn au pouvoir ku ci nekk boo dee cordonnier demal nekk cordonnier continuer boo dee boo dee pêcheur continuer nekk pêcheur après nag loo ci am temps nga dugalaloo ko ci askan bi loolu vraiment c'est un message incha allah le 31. dañu war a voter ay député député yooyu euh, su ñu leen lee ba pare yàlla na gën ci doomu Sénégal yàlla na gën ci ñoom c'est vrai mais yàlla na gën ci doomu Sénégal parce que ñoom doomu Sénégal lañ fa war a nekkal benn ñaareel bi ñu fexe ba. xuloo du am xeex du am. Mhm. bés ba nit ñi jóg calmement voté ku bëgg voté opposition na nga dem voté opposition. Mhm. ku bugg voté Benno Bokk Yaakaar na nga dem voté Benno Bokk Yaakaar boo paree nga dem toog sa kër dimanche lundi huit heures képp ku am xëy nga dem xëy. Mhm. donc vraiment man c'est ce message la que je veux lancer aux Sénégalaises et aux Sénégalais. di euh, di leen euh, di leen félicité Sénégal mhm. maa ngi koy wax sànq mhm. euh, chaîne bu bu macha allah bu mucc ayib la mhm. parce que man am naa ci firndeel ànd naag yéen fële ca Dubaï représenté fa Sénégal représenté le peuple sénégalais Sénégal am fierté mais pourquoi Sénégal am fierté parce que dafa am ay journalistes yu ñëwoon foofu def liggéey journaliste Sénégal bokkoon nañ ci ci journée national ci clôture yéen ñëpp bokkoon ngeen ci loolu donc loolu tamit dama leen di ci féliciter féliciter tous les journalistes qui sont à l'intérieur yëngal naa la tuuti mais comme on dit qui aime bien châtie bien bugguma gis jeune journaliste man sama xalaat la Euh, war a xaw a am jëngutu moo tax may yëngal noonu mais loolu c'est c'est vraiment c'est vraiment dans l'amitié dans l'adversité moi comme j'ai dit j'ai fait des championnats ay def naa ay championnat du monde boxe et cetera xool boxe ak nit ki moo nit ki mun na la dóor sax ba nga daanu après ngeen lëngoo et cetera je veux vraiment que ñu ñu dem dans ce sens-là et vraiment c'est pas méchant c'est c'est quelque chose que j'ai ressenti et dama xalaat ne euh, de temps en temps yenn yi tamit euh, soo ko gisee da ngay ñëw tegaat ko ci yoon après rek ñu avance dégg ngeen ko mbokk internet Sénégal le message de docteur euh, Malick Diop directeur général euh, ASEPEX émission bi yaakaar nañ ne la ñu doon wax dina am njëriñ ci askan wi donc foog naa ne ñëpp nañ dégg message mel noonu donc Sénégal mu ngi lay jaajëfal di la jox dig daje xam naa après élection yi. incha allah dinañ amaat beneen comme ñu mën a waxtaan si présidentielle yi. incha allah yàlla ñu comme loolu nga ñu wax yàlla nañu may ndam. Euh, ndaxte ndam li je pense que pour doomu Sénégal la. Mm-hmm. maintenant nag bu ñu duggee ci yeneen. jongante bu ngeen ñëwee bu ngeen bëggee ñu wax ci affaire présidentielle mm-hmm. sans aucun problème dinañ ci wax incha allah. donc émission Nay Leer fii lay yem tey. di leen jox dig daje ci bés yi di ñëw. incha allah.